coowal euh, suuf di escroquerie foncière boo xam ni moom lañ koy tuumaal euh, bii par nag mu toll ci euh, lu ëpp trois cent millions xam ngeen ni bu yàggul dara ni ki démb rek la ñu ko daal di libéré gannaaw coow lu ni mel loo xam ni moom la ñu ko toppee woon gannaaw garde à vue bi mu amoon na ci benn fànn kon coow loolu ñëwaat na si kawam dinañu àddu itam ci ki nga xam ni moo di Alioune moom nag dafa ñëw daal di sànni ay kàddu ci gouvernement Diomaye ak Sonko bi ni mom lañu gis euh, moy état pastefien manam mom lañu fi bëgg teural gannaaw bi nga xamé ni genn nañ euh, ci état euh, bu Macky Sall nekkoon état bo xamni état bu agressif la won kon tay dañu rek daldi di ci état bu agressif daldi di addu si ci li nga xamni modi di état pastefien dinañu addu itam ci ki nga xamni modi di docteur Babacar Diop docteur Babacar Diop moy maire bu Thiès maire bu ville bu Thiès mom nak fi nga xamni modi di place de France ba nekké sa Thiès ñepp xam ko fa mom nak la la bëgg daal di koy tabaxaat defaraat ko ba mu gën a méngoog jamono waaye du ca yem ndax nee na bu ci noppee da koy daal di rek tuddee benn tur boo xam ni euh, doomu euh, Thiès boo xam ni jàmbaar la ca dëkk ba moom la koy daal di euh, tuddee loolee lépp nag ñu ni dafa rekk daal di dellu si ci li nga xam ni moo di jub jubal jubbanti bi nga xam ni moom la gouvernement yu bees yi daal di rek woote dinañu wax itam ci ki nga xam ni moo di Karim Wade ak amadu Ba tey laas yéenekaay dafa xëy daal di àddu si ñaar ñooñee euh, kiif kiif maanaam benn lañu li ko waral nag mooy ay profil yu baax lañu ci wàllu politique waaye dañoo manqué li nga xam ni moo di audace euh, daañu wax itam ci match bi nga xam ni moo amoon ni ki démb ñeel éliminatoire coupe du monde 2026 euh, xam ngeen di Sénégal laale woon na ni ki démb ak RDC RDC di république démocratique bu Congo ndam demul ndam dikkul parce que 1 la woon ku ci nekk benn bii nga daal di marqué ba match bi jeexee nag ki nga xam ni moo di Sadio Mané moom mi nga xam ni sax peut-être match boobule waaye nag daal dinay analyser un li nga xam ni moom la gis ci euh, équipe bi euh, ne rek faaw ñu soppi li nga xam ni moo di euh, système de jeu bi loolee nag dinañ ko waxtaanee ak Arfan bi nga xam ni loolu itam domaine am la kon yaakaar naa ponk yaa ngi noonu dañuy rek dal di dugg ci li nga xam ni moo di yaatal bi ànd ci ak Arfan saa mu daal di ñuy faram-fàcceel mbir mi ba mu leer nañ Arfan xanaa ñu door ko rek ak li nga xam ni junj naa ko ci ndorteel ki nga xam ni moo di euh, Juan Branco euh, amaloon na ko ak maître euh, Bamba Cissé ni ki démb fii ci CICES ñu bari nag teewee ween ko moom maître moom Juan Branco plutôt ak metre Bamba Cissé yëpp ñu daal ñëwaat ci événement yi nga xam ni moom la ñu weesu woon di ay événement yoo xam ni marqué woon na Sénégal mu métti woon trop ba amoon ci ay détenus politiques ak lépp loole lépp nag daal nañ ciy dellu si ba ci nag affaire ajisaar bi dèjà Arfan li ma lay laaj mooy bi ñu ne Juan Branco day ñëw Sénégal woon jëpp am ñu naan euh, indi nañ fi Mélenchon euh, pare nañ indiwaat Juan Branco te ñu xam ni ñoom ñaan ñëpp dañuy defendre li nga xam ni euh, moo di ay cause LGBT démb ñu gis moom Juan Branco ñëw def conférence ba pare dégguñu mu wax ci lu ni mel parce que li mu wax mooy mbirum politique ak mbirum droit nan nga gisee seen conférence bi ni ki démb alors abi conférence boo xamante ne d'abord abord dañ ko annoncé woon fële ICAD après par la suite mujjewul am ICAD nous mhm. délocaliser ko andi ko fii CICES mhm. donc CICES le moudjé am mhm. euh, conférence bo xamante euh, euh, ñi yallo conférence bi wala ñu ko bëggoon dem nañu fa massivement di déglu Juan Branco et maître Bamba Cissé ñoo xamante ay avocat lañu ay avocat lañu kenen ki bindo ci le barreau de Paris kenen ki bindo ci le barreau de Dakar donc ñaari avocat yu xarañ la ñoo xamante xamante ne ràññee nañu loon ci ci ci jamono Sonko. Mhm. bu muy am ay lënt lënt ci mhm. avec nguur mhm. Macky Sall. ñu gis euh, ces avocats là ñu marqué cette époque hein, donc euh, tey ñu bëgg a jaakaarloo wala ñu jaakaarloo démb ak euh, askanu Sénégal di ñëwaat sur les faits. donc di def c'est comme si une synthèse une synthèse lañ doon def. ci lu fi jotoon jaar. ci ci jamono Macky Sall ba nëgë nii maintenant man dama def analyse bi constater selon les propos de maître Bamba et aussi euh, Juan Branco ami surtout Juan Branco d'avoir insisté à ce que donc euh, pour euh, le gouvernement qui est là de Diomaye Akson, comme on am suivi qui la le dossier pénal de Macky Sall Akwa xamante ak waa au niveau de la CPI d'avoir les léegi ci bini la ñoom luñu mënon def nañ ko Juan Branco surtout mom lu mu def ci dossier boobu euh, bu mu cour pénale mom def na maintenant reste ba xam régime bi ni Sonko ak jomay mm-hmm. dinañu décider continuer dossier de joko gëdd mm-hmm. égaler liguey bi parce que Juan dafa mm-hmm. dafa commencé bi mais ngi les nouvelles autorités pour ñu bi ami lu am solo la euh, parce que euh, sénégalais je crois que le demande sociale parce que mhm. sénégalais n'y ont nangu que. Mhm. Euh, on peut pas le dossier là ne peut pas rester impuni. mandat contre oui mais mais le mandat d'arrêt contre Macky Sall a été mm. signé. il y a une pétition qui est en cours les gens mm. sont en train de signer. Mm-hmm. les gens signent ba les ñu un mandat d'arrêt maintenant <laughs> ça reste à savoir si vous faites suñu autorité, autorité tamit l'enthousiasme de la population yi am ci ce mandat d'arrêt là contre Macky Sall ba xam suñu autorité yi tamit lolu moy seen bëgg-bëgg loolu mooy problème bi mhm, mhm. xam nga askan bi mën naa bëgg ñu mhm. ñu rapatrier Macky Sall mais fekkee aussi suñu suñu autorité yi en place bëgguñu ànduñu si ci ci si loolu ça aussi ça va poser défaut ça reste à savoir le président de la république ou bien le gouvernement de Ousmane Sonko et pour le rapatriement de Macky parce que c'est une demande nationale mhm. les gens en parlent les gens en font un débat mhm. même man je suis d'accord pour que Macky Sall mu à parce que je suis pas d'accord pour Macky Sall quitter ce pays pour les secrets étatiques yu il a géré ce pays pendant 12 ans mhm. on peut pas le laisser errer dans la nature c'est un danger pour ce pays c'est un danger pour ce pays ami man fofu lay waxé. États-Unis ñu ben yoon bàyyi un président après son exercice mu gaday ci benen deuk ñu ne di servir dëkk bobu. non mais États-Unis ñu lolu. la France halatu ñu tay un président français mu géré ba bàyyi muy gaday di rawatina di gérer wala di di liggéeyal benen réew mm-hmm. les pays sérieux ñu lolu. Allemagne Canada kazalika Khalatou Lolo. Nous dañuy am législation boumengo ak culture un président après son exercice il reste dans le pays les États-Unis un président après son exercice il reste aux États-Unis il reste aux États-Unis la France combien de Français ex-présidents de la France qui sont aujourd'hui en France mm-hmm. ñoom Jacques ils sont pas en France Nicolas Sarkozy La Bogo ils sont pas en France est-ce que da leen gis ñu gaday ci benn réew. di di taxawaalu comme Macky Sall nu muy taxawaalu tantôt Maroc tantôt France tantôt États-Unis loolu bobu taxawaalu hein? lu tax suñu président yi ñom buñu paré rek dañuy génn Sénégal mais parce que ñun ñoo fi dënk loi bo xamantene hmm. man d'ailleurs loolu man j'invite à l'Assemblée nationale qui va venir ñu ñu def proposition proposition de loi man ni sax en tant que journaliste dinaa bind proposition proposition de loi. Eh, eh, eh, yobou ko assemblée nationale man dama bëgg ñu créer une loi pour que un président de la république après son exercice amul droit génn réew bi mm-hmm. amul droit da fi tok fi waxu ñu ay ay voyage ni mëna voyager ni mm-hmm. vacances mm-hmm. mais fi lay tok da dem liggéeyal kenn dem di dëkk benen réew wala di fa liggéey man loi boobu bëgg ñu instaurer ko yobou ko proposition de loi à l'assemblée nationale parce que li dafa doy Abdou Diouf wàcc gàddaay. Mhm. Macky Abdoulaye Wade wàcc mhm. gàddaay. Mhm. ñëwaat Macky Sall wàcc gàddaay. Senghor sax jeexalul safa daf dafa gàddaay bàyyi fii Abdou Diouf Sénégal loolu au nom comme si dañoo bëggatul seen réew. ñoo ñoo bëggoon mais bëggatuñu. réew mi. d'après tout ce que ce pays-là t'a yow yaa bëggoon léegi bëggatoo mais loolu au nom nga nga nga géré. askan pendant un mandat deux mandats douze ans nga wacc nga ne léegi man ma len bëggoon bëggatuma sur suur naa leen hmm. dégg Macky Sall di dem lan la waxoon hmm. dama doyal seuk hmm. dama doyal dama doyal ci do ay nit dara c'est comme ça mais lolu parce que Sénégal élaboré wul mettre en place une loi pour permettre que un président qui gère il doit rester dans ce pays à tout prix ah non non non là, quand même ami à tout prix il doit rester ici dans ce pays Mon proposition de loi pour laa nationale. Juan Branco aussi le pour état gouvernement mais le la mhm. Juan Branco il mhm. l'a dit hier. Mhm. mais c'est comme ça. dans un état sérieux il faut qu'il y ait une organisation. Euh, comme adresse euh, avant pendant et après. d'un président de la république. il faut que nous organiser ko canaliser gis nga loi loi d'ailleurs, dañoo war président de la république avant mhm. pendant et après son exercice mhm. mais loi de du le tënk après avant ton exercice pendant ton exercice mais après ton exercice non, non non mën nga dem taxawalu Suisse mhm. mën nga dem taxawalu Arabie Saoudi gaday mën nga gaday sa France un président de la république qui a des secrets étatiques yu mën tal rew ñu baye Macky Sall ah muy taxawalu ah comme ça ni benn le bu ko soxlay mën na jaar ci mom ñu ne ko Sénégal c'est quoi les points faibles mm, mm. parce que dañoo bëgg ñaari ni nii dañoo soof Sonko ak jomay dañoo soof mm. légui dañoo bëgg attaquer Sénégal mais légui yow kay ñu jox la xaalis nga nga wax ñu quels sont les points faibles du Sénégal mais Macky Sall il peut le faire mm-hmm. et lolu c'est un danger pour ce mm-hmm. pays c'est un mm-hmm. danger pour ce pays bo waxe ñu a non yenn loi moo ne ñu japp un président de la République après son exercice loi bobu lañ wara jëlé fi ami ñu naan non balaa ñuy top un président de la République il faut que mu crime contre l'humanité wala haute trahison man dama bëgg proposition de loi bu jëlee loi Bobu foofu un président de la République après son exercice mën nañu ko topp comme ministre. Mhm. parce que loolu mooy permettre. Mhm. ñoom bu ñu nekkee au pouvoir. Mhm. du ñu def yenn yi. man loolu gëm. loi Bobu dañ ko war a jëlee fii bu protéger un président de la République après son exercice. ñu instaurer fii beneen loi amul droit génn réew mi un ñaareel bi ñu wàññi sa doole ba que ni yow boo defee dara. Mhm. war nañu laa topp comme ni ñuy toppee sa ministre. Mhm. comme ça yow président yi fii ñëw bu ñu nekkee au pouvoir dinañ am xel ni que man attention su ma defee nii su ma wàccee non seulement du ma bouger meetar fii laay nekk mais bu ñu ma bëggee tëj dañ may tëj. Mhm. il faut que ñu bàyyi xel ci loolu. man loolu lay wax mais bo waxee gaay ñoo la gëna a xam ñoo la gëna xam état ñi naan ñom ay homme d'état lañu homme d'état yi homme d'état yëpp ay sàcc lañu <laughs> ñi tuddé cet homme d'état yi man homme d'état la ay sàcc lañu fa la yobé Sénégal depuis 1960 ñi woyé sen bop wooy diw mm-hmm. le ministre d'état oui l'homme d'état mm-hmm. le ministre xawma tal c'était un homme d'état mm-hmm. fa la yobé Sénégal à part ci à part loubel xaalis Sénégal à part seddo suñu suuf xoolal fan yi yëpp. Mhm. foo sandi bàcc bu tàkk mhm, ay mhm. escroquerie foncier ay sàcc terrain ay jaayi terrain c'est ce le là ñoom ñooy wooye seen bopp secret défense secret mission secret mission secret homme d'état c'est ce le là Sénégal c'est pas un pays pauvre ami le Sénégal c'est pas un pays pauvre mais xaalis bi dafa féetoo boor dafa féetoo benn boor ñoom ñuy jël xaalis Sénégal di ko caxat mais Sénégal c'est pas un pays pauvre le Sénégal c'est un pays pauvre la na, de bëgg a jaar sa kaw pour def lu muy def mais nous, autorité ñoo la que le Sénégal c'est pas un pays pauvre ami comment un pays pauvre on peut détourner ben nit détourner des milliards dans un pays pauvre yow nga comme dans un pays un pays pauvre de un pays qui fait parmi les 25 pays les plus pauvres au monde on te dit Massamba l'ancien ministre Mademba wala Massamba détourne plus de 29 milliards. voilà mhm. 36 milliards voilà 1000 milliards. voilà mhm. 3000 milliards. ba sénégalais taxaw di ko réclamer suñu 400 cent <laughs> dossier bon la toll. <laughs> fan dossier bon mhm. ba les ñu ngi ci comme mouches. comme des mouches ah. ñu tuumal na ba sénégalais <laughs> Légi, dossier bi daan danaa xoolal amnistie bi effacé wu France daal di xëdëm <laughs> ñuy taxawaalu fii ci dëkk bi léegi koo wax mooy la ci amnistie bi la oui c'est ça après bu ñu <laughs> c'est ces mêmes autorités euh. ñooy taxaw dina am <laughs> non le coût de la dette est élevé mm-hmm. oui Sénégal c'est un pays pauvre mm-hmm. donc voilà ñoom c'est les mêmes, c'est les mêmes personnes hein. mm-hmm. te ñoom bu ñu fayoon rek mën nañ si fay suñuy voilà c'est ça la règle man gëwuma loolu man gëwuma ni que Sénégal c'est un pays pauvre xam la lan gëm ñu guuxoon nañu gox yi man loolu laa gëm képp ku luubal alal Sénégal xaalis Sénégal mm-hmm. na ko fay ba mu mat fët ba pare ñu yóbbu ko kaso mm-hmm. ba pare ñu xool lu ñuy ñu lu ñuy réformer suñu loi yi parce que les lois les lois sénégalaises c'est des lois tellement protectrices dañuy protéger ay nit mm-hmm. da ngay sàcc ba pare loi protégé la man lu laa gëm am gëwuma loolu gis nga loi yi comme Bassirou Diomaye Faye organiser na assise fële il faut que ñu refer ñu refermer vite fait la justice sénégalaise. Mhm. comme ça ku ñu mën a topp ñu topp la man la mhm. laa mhm. parce que loi yi tellement nous mu bindoo depuis 1960. dafa protéger ay nit. loi Sénégal yi dañoo dañoo dafa dafa protéger ay nit. da ngay gis borom daraja am xaalis kenn mënu koo jàpp. boo leen amee problème sax ci yoon moom mooy fay bàyyi la ci la yow nga tëdd loi Sénégal il faut ñu nous ko ami mhm, mhm. loi Sénégal ñu ko les ministres la képp ku les ñu les la ci lu yomb nga mhm. fay xaalis Sénégal ba ñu la président de la république bu fi lu ay nit bo wacce nañu wax ni fokk ñu ñu constater que def nga crime contre l'humanité lu ne fang lay constaté lu ne fang lay constaté loi bobu lañu ne nañ ko jëlé loi simple bu ak bépp président bu fi reylu ay nit bu fi sàcc ay nit wala bu def haute trahison ci signature contrat yi suñu lu ñu moom. Mm-hmm. ñëpp bokk war a jot si ñoom ñu jël ko nañu créer loi boo xamante dafay mm-hmm. oyof pour ñu jàpp ñooñu. Mm-hmm. man loolu laa gëm man loolu laa d'accordul moo tax ma ne conférence bu ma Juan Branco def fële. il faut que da nga koy ba da nga koy déglu xel. bu ko déglu xol parce que way tubaab bi wala leneen contrairement waa Bennoo Bokk Yaakaar ni ñu koy waxee. nit da nga koy déglu solennellement lu muy wax pour nga nga am am mm-hmm. am si njëriñ bi ngay jëlee man loolu laa gëm. Mm-hmm. donc ami man mm-hmm. lii laay concernant mm-hmm. conférence euh, Diomaye te aussi mm-hmm. di alerter autorités pour nous dugal loi une loi organique assemblée nationale pour les présidents de la république après leurs exercices bu nous bouger meetar nañu de fii comme nous. bu nous lekkee somme bi ñu lekk les je sais que nous dañu les somme parce que ay milliards la milliard yor ay milliards la nous yor bu nous comment dirais-je euh, acceeke lek lekk acceeke que ñu lekkee ñànkatan ñu lekk mais comment on présente de la après son exercice ñu bàyyi ko muy dem di taxawaalu mm-hmm. Mm-hmm. ça c'est un danger parce que le régime de Diomaye là mm-hmm. Macky Sall mën na leen à distance te ñoom xam nañu baax nous wax Macky Sall na leen à distance Nous na leen opposer cest à que politique bu gën salter salte madame maanaam ñu baille Macky Sall à distance mu leen di opposer li may wax nii dinañ ko gis si kanam. Mhm. politique xam nga dañuy yaakaar dañuy ne Macky Sall c'est un génie politique xam nga ngay gis ne mag ñi ñi di taxaw ni na non Macky noo ko bañ bañ da ngay nangu ni que c'est une bête politique un mhm. génie politique. Mhm. da ngay dig da ngay dégg ñi ñi di ko wax ci plateau yi. mais ku mel noonu un génie politique. nga koy bàyyi mu taxawaalu dans la nature. mais doo ko bàyyi mu taxawaalu dans la nature. da nga koy teg sa wet nga koy surveiller. bu jaree jàpp ñu jàpp ko dugal ko ci kaso bi parce que def na fi lu ne fang ñu gis ko. <laughs> Juan Branco sax démb. mi ngi mi ngi mi ngi ci mi